lan moo ma gën a naqari si réew mi tey 2012 billaahi damaa xeexal Macky Sall billaahi xeexal sama réew di fayital sama réew boo maa ngi am l'âge de 16 ans billaahi dama guddi dama daan wàcc nekk tout tànk di xeex di taal ngir Macky Sall falu billaahi ba mu faloo ma xamante ni mu koy topp di ko siifur di siifur li nga xamante ni moom laa ko falee woon saa waay defut defut si dara rien du ma ne ma taxaw seelu xale bu ndaw laa quoi ma ne kii nii ma faloon nii wallaahi li ma bëggoon mu def ko daa trahir population Sénégal man damaa nekk juddu rek nekk bañkat di xeexal sama réew lii nelaw sama yaram xaw ma koon wallaahi xasib mais bu ma gisee man li may jogloo may xeex may xam ne lii nii pour ñëpp am jàmm tey Sénégal boo demee tey Sénégal majorité bi daa si village yi fu nekk am na ñoo xam ne ndox amuñu ko am na ñoo xam ne bu feebaree duñu faju am na ñoo xam ne man damay fàtt sama bopp damay fàtt sama bopp ndax nit ñi am jàmm nga Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom gis nga bu ñu ko liggéey billaahi ñun ñëpp ñoo si am jàmm gis nga bu ñu ko bàyyee ñun ñëpp ñoo si perte tey man président la yow président képp ku may dégg président nga taxaway président nga war a président njiit la de da koy teg jiital ko léegi mu exécuté maanaam pouvoir yi mais sikkat yooyu nit ñi ñoo ko siy jàppale population yi tey man maa ngi nii dama xëy liggéey bàyyi sama place tëj sama place ngir injustice bi nga xamante ni mooy daw si réew mi mais nag bu dee man kese man jooyu dara li ma bëgg a fayda sama bopp am naa ko mais pour doomu aadama yi nga xamante ne xamuñ fan leen di teg seen tànk tey injustice bi ñuy xeex ni ki koy contre laaw nekk jeune nekk jeune nekk sénégalais ngay défendre loolu man xaama loolu lan la ko doomu aadama mane damay toog ma laaj question quoi ma ne man en tant que sénégalais juddoo Sénégal may juddoo Sénégal maanaam di xeexal sama réew bëgguma dem tukki fenn am naa amoon naa benn opportunité boo xam ne bëggoon a tukki sama tukki mais yàlla defal tukki mi damaa dem ba xam ne lii nii bu ma demee dama si perte moo tax ma récalé waat ngir di xam ne tey instant yi tool ni fu ma taxaw tànk bu ma jéggi taxaw nag teg sama réew laay xeexal bët bu may xool. dama xool pour Sénégal jëm ca kanam tey bu jëmul ca kanam gàcce la ñu am depuis temps depuis temps ñun sénégalais ñu ngi ji di nawee loo xamante ni jukko bu rafet tey boo demoon tey si dëkk àll yi laa la wax mag ñi li le baaxoo ñu ne sénégalais du daw sénégalais jàmbaar la Sénégal maanaam kenn yebu ko kenn mësu ko yeb te jamono yuñ toll nii ñu ngi yeb si alaas lan am na ñoo xamante ni tey ñu ngi résister ngeen ñu ñu ñu yeb ñi mais ñi nga xam ne ñooy yàq si affaire yi ñu yem ñi te kenn warul nangu loolu kenn warul nangu kenn ku ne am nga si pas de respect journaliste bi yi nga yow journaliste bi yow laay waxal gis nga bis boo génnee yaa ngi ni yow ca doo nelaw doo def dara dangeen joxe xabaar yoo xamante ni day jëriñ suñuy réew taxawaay ji nga suñ tànk bi fi ñu ko taxaw nii nii wóorut aduna dara wóorut mi insi taxawee da ngay taxaw nga wax dëgg te yàlla rek tax wallaahi xasim gis nga tey jamono yuñ toll nii man lu ma doon rêvé tey Sénégal tey ñu xëyoon ñu ne ñëpp ñu si ay bonnes conditions conditions yu nice man sax man du ma am dara jar na ma ñàkk dara pour sénégalais yi ñoom am nekk si bonnes conditions yoo xamante ni mosuma tey c'est la première fois nag yàgg na kenn xamuma mais c'est la première fois tey ma génn c'est la première fois tey ma génn di wax média média sama tànk damaa ñëw xool ba xam tey cité kër googu situation bi fi nekk nii ma opéré du ma yàq nag duma taal mais képp ku ñu war a teg loo xamante ni naka sudul noonu damay taxaw ma résister lu am may ma résister pour jàppale képp koo xam ne dañ koy noot man suñ may noot tey tey man damay bëgg ku ma jàppale su ma gisee bépp doomu aadama boo xamante ni même boo juddoo woon tey nga nekk frontal tey nu ñu lay protéger di la kii tey boo màggee ba kii dafa am ay loi et institutions yoo xam ne ñooy protéger ñun ñëpp ay ay tout tànk leen tànk tey tey mu ngi mel tey ñu takk der ñu ngi nii ni tey coono bi nga xamante ni lañuy ñuy daj ñu leen ko daj tey instant yi toll ni buñ leen juróon ay bonne condition teg leen si condition bu rafet tey ñoom bu ñu taxawee génn dañuy face ak population bi na leen yën yën leen yéen ñin leen fi nekkal yow ma sañ-sañ di doxoñ joxoñ takk der yow it amoo sañ-sañ sañ-sañ takk der bi amul sañ-sañ di ma joxoñ man mais nag bu ñu demee ba xamante ni tey ñu boole ñi jàpp dox suñu diggante ak ñoom ne na ñun ay noon leen te fekk malgré du ay noon mais nag ji nga bu demee ba réew mi toll fii nag bonne volontaire ñi nga xamante ni ñoo war a wax neutre waxuñu gis nga réew mi fa mu jëm ño war a wax kilifa kilifa bépp kilifa bu nekk Sénégal tey da ngaa war a génn wax yow international bi jëy ñu ngi ñu ngi wër Sénégal bëgg ñu ree leen wallaahi tey mu ngi mel ne man mi tey kilifa sama sama kër laaw kilifa ba ma bàyyi moom lay sëkkatal pour mu wax kenn ku nekk am nga kilifa goo bàyyi wala kilifa goo jokk danga koy wax taxaw mu taxaw ne lii nii nañ ko empêcher teg ko ci suuf pour Sénégal am jàmm Sénégal bu amul jàmm ñun ñu am jàmm lu leer laa lay wax lu mel ne Ousmane Sonko du ma préciser de mais Ousmane Sonko moom it damay wax bu amul jàmm sénégalais yi duñu am jàmm Sénégal yi du am jàmm de loolu moom nan leer ñëpp yow journaliste bi yow laay waxal foo mënta nekk si àdduna bi nga nekk doomu sénégalais yow foo mënta nekk si àdduna bi yaa ngi Atlanta yaa ngi États-Unis dañoo bëgg suñu réew mel ni États-Unis bu mu jaam gi mu tekkeeku bu mu jaam gi day tekkeeku dañ dina tekkeeku si nii wala mu tekkeeku si naa mais ñaanuñu yàlla ay bakkan di si roon nag wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala